muy ñaari yi internat yi nga xam ne ni waa Hikmatul mi ubbi nañu ko ngir di ci liggéeyal Serigne Touba ba tu tànk yaa ngi ciy jàng ku bëgg a jokkoo ak ñoom nag ngir bëgg leeral ci daara ji ngir indi fi sa tu tànk yaa ngi woote ci 77 633 77 56. tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyee léegi yéen li ñu tàmbali fan yi te mooy mbëkk mi. wala barza barsaq xam naa tey lañu koy tëj incha allahu di tàmbalee di di ko tëjee fa ñu tàmbale woon rek te mooy ñaanal sunu doom yi ak sunu jarbaat yi ñi nga xam ne nii suñu borom dogal nañu àgg yal na leen suñu borom defal xéewal yu ëpp yooyu yal leen tax a jóg defal leen jàmm ba ñu dellu siwaat fekkaat fi seenu njaboot ak seeni jur ba mën leen a teral ñi ñi ci suñu borom tudd seenu desit yàlla leen su borom yërëm te jéggal leen xaare leen àjjana barke Cheikh Xadim waaye ñi demagut tey dégg suñu kàddoot ñoo ngi leen di ñaax ci ñu bañ a dem wala bu ñu bëggee dem tukki itam ñu bañ koo jaar ci foofu ndax foofu kat baaxut ndax damay wax ne bu fekkee ne pression sociale moo leen tax a jóg maanaam way jur yi wala yenn mbokk yi ñoo leen teg pression ba tax leen a jóg itam day mel ni boo demee su borom dogal nga des ci yoon wi muy sa wajur wala sa sa mbokk mu mën di doon bu boobaa dana ñàkk ñaar yoon ndax lam doon séentu ci yow ba tax nga dem dana ko ñàkk waaye yow dana la ñàkk te kon loolu dara jëru ko kon nag foofu du jaarukaay du fu jaar rek waaye eh, ñi demagut te di ko xalaat te dégg sunu kàddu ñoo ngi leen di dénk di leen ñaan ngir jëmmi yàlla ak yonante bi ak jëmmi sëriñ Tuubaa ñu bañ a jaar ci mbëkk mi naan dañuy tukki ndax loolu dëppoowul ak yoon beneen ba ja desit wërsëg ci boppam dafa jërut risque saw yi ndax yonante bi sallallahu alayhi day wax ne nit ki ni mu sonnee ci di wër wërsëgam bu xëyee noonu la wërsëg wërsëgam a ko gën a sonn ci di ko wër imam Shafii day wax ne sa wërsëg de war ngaa lu sax ndax mooy teg yi ni dox suñ dégg ak suñu borom waaye nag jarut nga ci ray sa bopp ndax ni ngay xëyee di wërsëg wërsëg ni la sa wërsëg xëyee di la wër te boo xamul sa adresse su wërsëg it sa wërsëg moom xam na sa xam na sa adresse kon nag loolu rek Euh, war naa tax ñu yem ci sabablu sabablu goo xam ne ni kat gu gu gu ànd ak ak dal la te bañ koo sababloo ci fitna fitna wala luy risque sunu wii ba tey yonente bi sallallahu wa alihi wa wax na ci beneen xadis ne doomu adama de bu fekkoon dafa ragal wërsëgam di ko daw ni mu ragalee ak dee am di ko daw waxtu wu ne itam du tee wërsëgam dana ko jot ni ko ak dee am di jotee dafa wax ne law annam na aadama haraba min risqi kama yahrabu min al mawt la adrakuhu risquhu kama yudrikuhu al mawt kon yaakaar naa itam mbir mi di ci boole tawxiid ak gëm yàlla itam lu ci ama am solo te doomu aadama ab jullit saa bu defee lam man rek wàcce na la ci des yoonam nekku ci ndax nit mënta weesu def lam man lam mënut mu wakkiil ko sunu borom tabaaraka ko taala tawaakul moo bon waaye tawakkul lu baax la wa maa yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbu kon nit ki dafa war a wakkiirlu ci sunu borom tabaaraka taala gannaaw bu defee la ko war ba noppi ñàkk def dara nag loolu la ñoo tawaakul mooy wëccandiku yàlla na ci yàlla musal te loolu ku ne xam ne nii wax dëgg yàlla defu leen ko kon nag la ca des moom mooy nañ bàyyee suñ borom tabaaraka taala mbir yi Sëriñ Tuubaa itam dafay wax ne. Eh, wutin wu sell wutin aw wutin sellal ko jaar ko ci yoon ak ci ngorog diine day day day taxa am waaye du xañ wërsëg day rafetalu amin waaye du xañ a wërsëg waaye jaar ko ci anam gu ñaawit day ñaawal wutin waaye du yokk wërsëg te tukki du yokk wërsëg dajale wërsëg la kenn ku nekk sa wërsëg dara du ci dolli ko yàlla xam ne ko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 moo la gën a sonn ci li la wër moo la ëpp fitna boo jëlutoon mbëkk mi itam moom mu jël mbëkk mi fekkal fekk la fi nga nekk muy sa wërsëg sa wërsëg boo jëlutoon mbëkk mi moom mu jël ko gannaaw noonu la demee nag kon jërul risque wi jërul rey sa bopp jërul timit di di ko wutee ci anam goo xam ne ni dëppoo wut ak ndigal te rafetut yàlla ñu suñu borom tabaaraka wa taala musal te defal ñu tawfiix kon kenn ku nekk li am solo mooy ngay wuutee wuutin wu dagan ah, la ca des nag nga xam ne ni mënoo ko loola moom wàcc na la li nga mën rek moo la war waaye li nga mënut wàcc na la kenn ku nekk lim mënut ci boppam sunu borom ko wa taala rek lan ci yaakaar mu jàppale ñu ci kon yàlla na sunu borom defal tawfeex te jàppale ñu bu baax a baax waaye lu mu mën di doon rek moom mbas la dañ ko boole ci mbas yi rek yàlla na ko sunu borom jeexal takk ba kenn ku nekk la nga la nga bëgg nga am ko te mu gën ci yow amin wu wu teey te jariñoo ko ci jariñun wu teeye teey tamit ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf di baalu ak ñëpp di santaat mbokk yi nga xam ne ñoo ngi jàppale waa daara Hikmatul Yawmi ci yëngutu bi ñu yëngutu te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci ndigalul Sëriñ Tuubaa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 in uridu illa al islaaha ma stataxtu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim